Heavyweights.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 ko élément Cheikh Ahmed Tidiane Diallo yi teg loxo gannaaw bu ñu fa defee ab descente ci atelier ba fekk booba dañoo jot ay information yu leen di xamal ne atelier boobu ab yamba ma nga fay am tey mënoon ngaa yem ci say tisi ci descente boobu la ñu bettee tailleur dal di fuyee atelier bi fekk ci suufu machine yi cinq cent grammes yamba mu engagé woon rek layo moo tax fi mu ne tailleur teg nañ ko loxo l'enquête bi jeexee na defeere nañu tailleur ci tribunal grande instance bu Guédiawaye bàyyi pisi dugg ci yamba moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona naa la wax Sénégal nag moom at mu ne li tubaab naan c'est toujours le même cri ndax at bu nekk bakkan yi rot ci plage yi dafay bari moo tax it tàmbaleeti na bii at la xew ca plage bu ka romb na doy waar ñeenti nit ñoo fa lab ci géej gi ndox ma lekk leen te nag nee ñu boo xefee lim bi dana yokku ma ne loolu sax ma ne loolu koy jarul sax wax ndax ñëpp xam nañ ne bu tàngee moom nit ñi dañuy riir wuti plage yi surtout plage yi ma ne boo demee ci place interdite yi day fees dell laa wax moo tax maître nageur yi ñu ngi alerte de ma ne ñu ngi alerte waajur yi naan leen téye leen seeni doom ndax ne ñu boo seetee ci place yooyu ñi ci gën a loru ay xale yu am juróom-ñett ba fukki at ak juróom la ndax ñooy fees dell ci place yi te ñu xam dëgg-dëgg danger bi nekk ci place yi dëgg la sax dëgg la sax brigade de surveillance yi ñoo nga fa waaye teewul xale yi dañuy fees dell ci place interdite yi di dugg ci ndox mi di falab moo taxit sauveteur yaa ngi jooy moo ngi jooy ndax manque moyen maanaam ay scooter de mer ngir gën a mën a baral seeni action ci place yi ma ne dëgg-dëgg li xew mooy place interdite kenn waru cee sangu moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax mbir mi la xewoon ca Kaolack ñu ko doon atte ca chambre criminelle bu Kaolack ma ne romb na doy waar laa wax bàyyi daal ak doomam ñoo fa jàpp ko dóor ko ba mu jaare fa ñàkk bakkanam ay waay mim réew mbir moomu ma xewee ca ndenne ndaw ne ca commune bu Ngunjaan beesaar di taaw bi ñu rey nee ñu dafa jóge woon ci ay xaritam gannaaw bu mu fa naanee jawoon ataaya bi mu dellu see ci kër gi ci la ko baayam bii di César sëkkatale ñoom ñaar ñooñu nee ñu seen diggante masula rattax diggante doom ak baay ñu naan masula rattax bi loolu amee nag ci la ñu jokkalante ay kaddu yu ñagas beesaar di taaw bi dal di jël jaasi wuti baay ba baay bi dal di ne fox daw dem tëju ci néegam si noonu la M di rakk ji dal di génne ab gourdin door ko bee magam ba mu daanu bi bee Sarr ci suuf nag la baay bi tëju woon ci néeg bi moom it génn ak gourdin moom ak doom ji di M ñu tiim seen taaw bi di ko fëggi gourdin di ko dóori gourdin ba mu ne nemm yemuñu foofu ñu yenu dem sànni ci ab teen bu nekk ca Jomkel di ab village bu nekk foofa ay waay xoolal ma lii nag bi ñu dee def seen ñaawteef boobu ci la leen emm njaay rombe emm njaay moomu nag nee ñu ñi jaay la ci victime bi mu ñëwee ci wetu teen bi ci la déggee yuuxu yi di jóge ci teen bi naka noonu ci la alerte sapeur pompier bu Kaolack bi ñu ñëwee ci la ñu génnee beesar dal di koy yóbbu ca hôpital El Hadji Ibrahima Niass waaye dafa fob diir mu ñàkk bakkanam ay waay tiim sa doom kii tiim magam ñu gàdduy gurdin di ko dóor di ko dóor ba mu ne lat yemuñu foofu ñu jël dem sànni ci ab teen moo tax ñi naan nit ñi bëri dañuy xaru dañuy xaru war nañoo seetaat xaru yi mu doonoon seen xibaaru buzz di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz